yaa aousubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñu topp ci biir ak ci bitim réew ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziar eh, di jiital ci nuyoo yaag ziar yëpp Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal sunu borom doole ko fa yàggal te mooy ko ak wér di sàkku ci murit yëpp ñu ñaanal ko ba lépp lu mu naal ngir liggéeyal ko sëñ Tuubaa lépp yàlla na ko yeggale ba sumb na leen tañ ànd moom di ko ñaanal baax Serigne Cheikh jëmb mu yàlla dogal tey mu toog ci bopp njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan yàlla sunu borom dolli ko fa yàggal te wéral ko ba lépp lu mu naal ngir liggéeyal ko maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na ko yeggale ba sumb leneen te ñaan ànd ko ak mboom mbokk yi xanaa ñëw rek di leen leeral tuuti ci eh, programme bi nga xamante ne bii moom la njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall fas yéenee eh, jëfe ci li nga xamante ne bii xam ngeen ne sëñ Tuubaa Cheikhul Xaddim sant na ko maam Cheikh Ibrahima Fall te mooy weeru koor muy togg ay ndogg di ko yóbbul njabootu Serigne Touba Cheikhul Khadim xanaa rek leeral tuuti rek ci li nga xamante ni bii sàkku nañ ko ci xamle lan moo doon programme mu euh, Baye Fall yi ci weeru koor wi naka la ñuy dundee koor gi incha allahu ànd koog Cheikh Mouhamadul Mountakha te mooy bés bu yàlla sàkk rek di togg ay ndogu di ko yóbbul ku tedd ki Serigne Touba euh, Cheikhul Khadim euh, xam ngeen ne loolu njaaram la xewee ñu ngi fàttali ko bu baax a baax bi nga xamante ni bii rek ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim yónnee na woolu maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi ko kër Cheikh fekk ji ko kër gu mag lu jiitu lool nag Cheikh Ibrahima Fall daana togg ay ndab daan ko yóbbul ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim bi mu nekkee Thiès da ko daan togg saxaar ga ñuy wax rëgërière ci la ko daan teg taalibe yi gàttandu saxaar gi njaareem indil ko ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim 1915 wala 1916 nag lañ ñu wax ci la maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi ko Thiès ñëw sanc njaareem ab diir la fa am ku baax ki woolu ko bi mu ñëwee daf ko ne damay séntu gan mi ngi ànd ak sëñ Yaaram te bëgg nga gàttandul ma ko te gungeel ma ko Cheikh Ibra Fall nag dégg sëriñ bi ah yaram mu ne Fall mu ne ko sëñ Bambara weeru koor la may wax eh, daal wax naa doom nañ ci jëm nag ñun ñëpp te lu ñu am def ca daal di wax ne ku ma ci jox lu toll lépp tànk tànk nag wax nañ ne mooy dërëm boo xaaj ay yoon mën nañ ko tudde 15 wala lu ko gën a suufee Cheikh Ibra Fall ne ku jox lu toll noonu ma fàggul la ci lu dootul yàqu te boo faatu mu dugal laajana loola nag maam Cheikh Ibrahima Fall ko fukki ndab ak ñaar ca njaarim eh, boole ci super ba nga xamante ni bii nag moo gën a mucc ayib nga xam dañ koy beral moom ki nga xam ni moom mooy borom liggéey bi super boobu Baye Cheikh Tall Galo moom moo ko daan toggal Cheikh Ibra Fall ndax maam Cheikh baaxoo nañ nag jigéen daw ko toggal góor a ko daan toggal boo demee njaareem waañ wa ko Baye Cheikh Tall Galo doon toggee dañ la koy woon ba tey fukki ndab ak ñaar yooyu la ko tàmbalee nag daan ci boole ay addiyam ñu ko daan yenu di ko yóbbu kër gu mag bi nga xam ni nag suñu borom dogal na Cheikh Ibra Fall jóge fi Cheikh Modou yokk ko ndax sëñam di Xadi Fall day wax ne ku yokkul yaa wàññi ñu yokk liggéey bi biñ ko yokkoo ba yàlla dogal na eh, sëñ Modou Moussa Fall jóge fi sëñ Mortala Fall di ñetteelu xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall toog moom itam wéyal liggéey boobee ba yàlla dogal mu jóge fi sëñ Ablaye Fall Ndar moom itam toog di ñeentulu xalifa wéyal liggéey boobu yàlla dogal sëñ Ablaye Fall ndar jógee fii moom itam eh, Serif Assane Fall toog wéyal liggéey boobu moom itam yaatal ko yàlla dogal itam sëñ sëñ Assane Fall jógee fii sëñ a toog ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall moom itam wéyal liggéey boobu di ko toggee fii ci Paline eh, di ko yóbbul Cheikh Abdou ci jamono booba suñ borom dogal fi nag dogal nag sëñ Abdou Sakkour dem léegi nag mu des sët yi sëñ Mourou Fall njëkk a wuutu eh, ci sët yi ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina moom liggéey boobu di ko togg fii ci ñaari Baye Fall di ko indil Cheikh Abdou Lahad ko ci ba ci Serigne Saliou Mbacké mu di ko indil waaye bi yàlla dogalee Serigne Modou Aminta Fall jóge fi moom itam fi ko sëñ Modou bàyyi woon nag Serigne Cheikh Jëm bi mu ñëwee daf ko yokk mu daal di ko def ñamu Touba nag muy ki nga xamante ne bii Cheikh Ibra Fall battale woon nañu ko waxoon nañu kan mooy sëñ Cheikh Jëmm ndax waxoon na ne fii ma toog ba bis penc ku fi toog su diglee def leen Cheikh Ibra nee na su teree ba leen su laajee jox leen su wootee wuji leen su xamul ma xamal ko Cheikh Ibrahima su amul ma amal ko su mënul ma mënal ko maay fay te du ma jeel te looloo feeñ tey ci Serigne Cheikh Jëmb yàlla na ko fi yàlla yàggal eh, wéyal liggéey boobu nag di ko doxal ba fi ñu toll tey yàlla na ko fi suñu borom yàggal mu di ko def ñamu Touba yokk ndab yi lool nag waaye tasaare ko itam te ci mbokkal maam Cheikh Ibrahima Fall Baay bi Mouridina ndax xam ngeen ne mboolem fukki buntu kër Cheikh Ibrahima Fall yi ak benn wala fukki buntu ñu ngi koy togg tey ji mën nañu wax Serigne Cheikh Jëmb mooy xalifa maam ngi koy togg ca Mbàkke ànd ak mboolem njaboot gi ak ñi nga xam ne sa borom dafa dogal ñu sofe ci moom mën nañ cee tudd ku mel ne ko jur sëñ Cheikh Jëmm mooy moom Cheikh Ibra Fall jur seen bàyyi waaye dañoo ànd ak sëñ liggéey bu tedd boobee di ko jur seen i kumte ñu ngi koy waajal fi ñu toll ni xam naa suba incha allah ñu waajal ko waaye Cheikh yi toppoon maam Cheikh Ibrahima Fall mën nañ ci tudd ku mel ne waa ke Ñaay waa ke sëñ Mun Njaay Ñaay waa ke sëñ Mam Mbayloo ñoom it kenn ku ci nekk dañ laa jox cin ci biir kër ga ba ci sëñ Yaaram Mbay sëñ Cheikh Mbay Yaaram moom it am cin mbooleem nag njabootuk Cheikh Ibra Fall gi itam nga xamante ni bi ay sëtam lañ ku mel ne sëñ Moraminta Fall ku mel ne waak sëñ Cheikh Fall Khady ku mel ne sëñ Fallou Fall euh, Fatikan moom Cheikh Moussa Fatikan njabootu Cheikh Moussa Fall googu te ànd ak Serigne Cheikh jëmb ci liggéey boobu ndax xam ngeen ne sëñ Fallum sëñ Moraminta Fall ak Cheikh Moussa Fall ñoom dañoo am ay cin ci biir kër sëñ Cheikh jëmb xam ngeen ne itam waak sëñ Fallou Fall Cheikh muy sëñ Cheikh dañoo ay cin ci biir kër sëñ waaye gannaaw loolu itam ñu wax ne ñi nga xamante ni bii nag Cheikh Ibrahima moo jur seen way jur tàmbale ko ci Cheikh Mor Talla Fall Serigne Abdou Fall Roqe yàlla na ko fi yàlla yàggal moom mi ngi koy toggi fii ci Paline Serigne Aliou Fall Mbowor njabootam Serigne Cheikh Fall Mbowor yàlla ko fi yàlla yàggal mi ngi koy toggi fii ci Paline bu waxtu wi jotee Serigne Abdou Roqe ak Serigne Cheikh Fall Mbowor ñooy ànd génnandoo ñëw fii ci Cheikh Mouhamadou Mountakha jox ko liggéey bi ndax ku ne xam na ne sëñ Aliou Fall Mbawor ak sëñ Moutala Fall ñoo bokk maam Cheikh Ibrahima Fall ak soxna Fatou Diop Sayer yàlla dogal ñu bokk itam dëkk ci Paalen di àndandoo di jébbal liggéey boobu Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na yàgg te sax eh, sëriñ Abdou Sakkour njabootam tàmbale ko ci sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Abdou Sakkour moom it mi ko toggee ci Paalen ko waajal ngir indil Cheikh Mouhamadou Mountakha ànd ak ay rakam nag sëriñ Mourtala moom Cheikh Abdou Sakkour sëriñ Talla moom Cheikh Abdou Sakkour sëriñ Bada moom Cheikh Abdou Sakkour Cheikh Moustapha moom Cheikh Abdou Sakkour ak mboolem soxna yi ñu ànd ak mboolem magi taalibe yi yëpp di ko ànd di ko jëbbal si Cheikh Mouhamadul Mountakha waa kër Serigne Ablaye xam ngeen ne Serigne Talla Ablaye mi ngi fii tey Mbàkke kër Serigne Ablaye koy toggee at mu jot ñu ñu waajal ko même Serigne Cheikh Bintou Fall mi nga xam ne moo fi wutu Cheikh Modou Abdoulaye Fall Ndar moom itam euh, liggéey boobu moom itam àndandoog ay wayjuram ñu di ko jëbbal si ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Jëmbu ñoom itam euh, euh, lañ koy jëbbal si su ko defee ñëw ñu àndandoo daal di indi liggéey bi fii tam waa kër Serigne Assane Fall su ñoom di Xadi Fall ajuma ba ajuma lay togg waaye xam ngeen ne moom alxames lay waajal alxames bu xëyee ci lay waajal liggéey bi alxames dañ koy fanaanee defar gàtt yi ak nag yi moom ku lim gëm mooy ku yokkut yaa wàññi su ko defee ñu waajale ko njaarim nag buñ xëyee nekk ci togg yi ba waxtu wi bëccëg mën naa deux heures wala trois heures mu noppi ñu waajal ko teg ko ci yi indil ko Cheikh Mouhamadul Mountakha mu sëñam di Xadi Fall nga xam ne eh, liggéey bi ko Cheikh Mouhamadul Mountakha sant ci ba tey mi ngi ci waaye yàqul dara nag ci liggéeyu weeru koor wi ndax leen lu nekk la moom jàmbar la eh, day wax ku yokkut yaa wàññi mi ngi waajal ndog yi incha allah mboolem taalib yëpp tam di ko waajal ci biir réew moom it noonu la koy taxawee incha allah ci li nga xamante ni bi noonu la ko maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina bàyyee woon moom it mu di ko taxaw bu baax a baax mboolem ñi nga xamante ni bi rek dañuy liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall te maam Cheikh bàyyi leen fi mën nañoo wax ne sax sëñ Cheikh Fall Baye góor ki nga xamante ne bii mooy Serigne Cheikh Ndigal Fall nekkal ko fi moom itam mu koy waajale ko yóbbu ko ne da nga xam ne noonu la ko Cheikh Fall bàyyee woon waaye togg yàlla dogal na Serigne Dame Abdourahmane Saalihu moo jiite woon liggéey bi sama borom dogal nag mu bàyyi ko fi tey Serigne Assane mu sëñ Modou Maam moo jiite liggéey boobu ñu di ko waajal ànd ak sunu bàjjen Soxna Fall jëgg moom itam daaru xafoor samedi ba samedi incha allah ñu di ko togg di ko yóbbul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xamante ne bi tey moo fi nekkal Serigne Touba Cheikhul Xaddim di ñaan eh, sunu borom eh, dolli ko wér te dolli ko kattan waaye lii daal mooy li nga xamante ni bi mooy programme ndog yi ak Baye Fall yi buñ koy indi nag eh, niñ koy waxee saa su nekk mooy toggin wi ñamu Touba lay doon ñamu sell woo xamante ni bii mën naa leen ne yi ñuy wax ay xorom ak ay xeeti yooyu nga xam ne day mën naa yàq xëy na bu ëppee mën naa yàq bu yéesee man naa yàq loola nag leen lu ci nekk doo ko ci ràññee la sëñ Abdou Khadir waxoon ne euh, booy lekk sa xel dem ci xorom rek toog gaa baaxul ndax bu ca sa xel demee mooy da ëpp wala daa yées waaye xeet yu mel noonu yëpp doo ca sentir dara dangay nga yëg ne rek togg gu mucc ayib la amut euh, amut timit euh, di ñam wala di xewlu di jox sa sëriñ ab des déedéet duñ ko laal soxlawuñ ca dara ñoom li gën ku génn lañ koy jox te mooy Serigne Touba Cheikhul Khadim duñ ca laal dara <laughs> boo demee Kawsara da ngay gis mus yu yaag yëpp di dox nga nga nga gis ñu di ko waajal di ko indi Sëñ Touba ba pare bu ñu nekkee sombi lañ cay teg moom lañuy ñuy loolu lépp day wane ne rek soxlawuñ ca dara li gën Sëñ Touba lañ koy jox buñ ko waajalee nag ba ngoon jot nag ñu àndandoo sikar nag tudd yàlla defar ndab li ba mucc ayib ñu seenu ko nag tudd yàlla ànd ak kilifa gi nga xam ne moom la sëriñ bi jiital ngir mu jiita ndog yi kenn ci ay rakam euh, ñu daal di indil ko Cheikh Mouhamadou Mountakha bu ñëwee daal di koy sédd la nag njabootu sëriñ Tuubaa ngi ndax xam nga ne euh, tànn na ay jëwriñ yoo xamante ne bii ba ndog yi ñëwee ñoom ci seen loxo lay tegu ñoo koy daal di séddale euh, di ci ziar baax ku ñu mel sëñ Lamp Ndiaye di ci ziar baax sëñ Cheikh Abdou Latif mi nga xam ne lu ci ëpp moom lañu sëriñ bi booleel Baye Fall yi nga xam ne bu ñëwee Eh, kër gi moom la ñuy jëflanteel ak mboolem njaboot gi yëpp itam nag su ko defee ñu waajal nag séddale ko njabootu sëñ Tuubaa mu mel ne ndog yi fépp lay dem ndax mas nañoo tuuxalee ci kenn ci jëwriñ yi ne ci kër gi ñu wax ne fépp foo xamante ne bi lu bokk sëñ Tuubaa nga fa rek ndog yi dana dana fa dem Cheikh Mouhamadou Mountakha moom lii yéeneem mooy mbooleem taalibe yëpp barkeelu ci eh, liggéeyab Cheikh Ibra Fall bi nga xam ne sëñ Tuubaa sasoon na ko ko eh, ci ci weeru koor loolu nag ñu fa yéene ko ànd nag ci diiru koor gi yëpp la ko tàmbale ci benn fanu koor ba ci weeri fan yi incha allahu bu yàlla sàkk rek ñu jàpp ne ñun njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo war a jox njabootuk Serigne Touba Cheikhul Khadim ndogu ndax loolu mooy li nga xam ne moom la maam Cheikh Ibrahima Fall jaayante woon ak Serigne Touba eh, Cheikhul Khadim xam naa danaa ci nettali benn xisa rek pour wax doye doye sëñ Aline wax ndogu yi fi fi fi eh, doye bi toll eh, dafa am bis maam Cheikh ku mas a ñëw ne ko man de Fall damaa gis kuy joxe ndogu di woor yow nga ne da ngay joxe ndogu te doo woor laaj ba xam xanaa ndogu yi dañoo bokkul saam Cheikh loolu la ne ko ndax seen ndogu yooyu bokk na sama ndogu yi mu ne ko damay laaj mu ne ko ñu weeru koor ñaata la kooku ne ko ñaar fukk juróom-ñeent dañun ñun suñ ca accès xam na matal nañ maam Cheikh na ko ah doom maasale moom suuf si mu maasale mun na ko bindal ndogu waa ji di deel bind keef bind alsaxeer seerafal na ko deel gi ñaata la mun na ko ñeent keef gi ñaata la mun na ko ñaar fukk alsaxeer gi ñaata mun na ko juróom muy ñaar fukk ak juróom-ñeent maam Cheikh na ko secret boobu la ma yàlla defal ci weeru koor ndax waxtu ma yoonoo sama ndog yi fii ci sama kër jëm kër sëñ Bamba bis boobu am naa ci ñaar fukki weeru koor ak juróom-ñeent laay am par bis yéen benn képp ngeen am ci weer yëpp di seen ba xam nangu na déet kon jëfi Cheikh Rafal yëmut ak jëfi kenn te sëñ Touba min nañ ba tey ci waxi sëñ Ahmad Sougou mu jéeri waa daan moo wax ne sëñ Touba lu mu daan togguli ci njëriñ danaa nañ ko seetal lu ñoree ca toolu Cheikh Ibrahima Fall dañ koy wër boo ko ne ah Fall loola na nañ seet leneen waaye danaa loolu lépp lu may def bu ci loolu Cheikh Rafal ko ca boole loolu xam li xew ndax dañuy wax ne sëñ Touba moom li Cheikh Ibra fi mu toll sëriñ bee ko ndax seex Samba Diarra Mbaye moo nu wax ca way wana Cheikh Ibra moom rawoon nañu maasam te deesu ko jot ndax Bàmbaa ko sempi mu raw yaaram bi nam Fall kon nag loolu noo ngi ñaan yàlla sans borom dimbali ñu ci jëfi Cheikh Ibra Fall jooju ñu dugg ci eh, seey ci ndax maam Cheikh moom daraam du jëm ci sëñ Tuubaa te yëggul

te boole ñu sàmm di ziar baax eh, sëñ Muntaxa Njaay ga moom moom suñu waaye la lool eh, jawrin la ñu mi ngi liggéey liggéey bu am solo fii ci kër sëñ Touba di ñaan yàlla sama borom yàggal ko fi alaaj Fallou Sylla moom itam di ko jàppale ci liggéey bi di ñaan rek sama borom musal leen ci mu ndok te ngeen forub dok ni ko a Rafal daan ñaanee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh